aousubillah min asheytaan irajim bismillahi irahmaani irahim alhamdulilahi wasalla abada ala lasi bihi lana huda bada allahuma salli ala sayidina mohammadin alfatixi lima oxliqa walxaatimi lima sabaqa nasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim xay xala laahin aslasin aslasin asin seesin xayrosin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen jaajëfal te di leen ñaanal jàmm ju sax dàkk àdduna ak àllaaxira barkab alquraanu karim di wax ni ngeen way di abonné tey partage vidéo te ko zem te di leen jégaluwaat bu baax a baax dañaan lépp loo xam ne waaye rootee na ko fi yal na ko suñu borom barkeel deful ko ci barkab Sayyidina Muhammad kam ni ko baaxoo def mbokk yi saa su nekk ñeen indil njariñ bàyyi ko ci alquraanu karim ak yàlla. ak ci li fi mag ñi bàyyi te lépp du génn alxuraan lépp du génn diine lislaam baa bu génne tam du génn lislaam mbokk yi kon tey ñu indi leen cangaay bu am doole lool wallahi wal qur'aani cangaay bu kéemaane te jafewul cangaay bi képp koo xam ne def nga ko ni ma ko waxee nga doon nit ku sell ànd ju sell bind ko wala moo xam nga won ko koo xam ni day yëngu ci alquranul karim moo xam sëriñu daara wala ku man alquran te taqoo ak moom wala nga jox ko bindkat mu bindal la ko lu mu la fay ko rek jar na ko ëpp wallaahi wal quraan yi boo xam ne boo ko sangoo diirub juróom-ñaari fan daa gis xéwal di bàyyi ko fa nekk di ñëw fi yow te la ci dàqati moom mooy mas goo nekk moom kenn du la ci raw mas goo nekk kenn du la ci tane wallaahi ñoo tollool nga xam ne danga ngaa maase ak ñoom kenn kenn du la ci tane wallahi wal quraan yi ca nga mi nag mbokk yi atalool da leen di présenté ni nga xamante ni bi moom la Diwane TV di liggéeyee bu doon nit ki nga xamante ni bi dafa bëgg ay kayit wala mu am jafe-jafe àdduna lu mel ni hémorroïde wala néew kartan hémorroïde gam sax ma ci incité ñi ko jëfandikoo ñoom xam nañ ko euh, wala wàllu néew kartan wala ki bëgg ay kayit wala ki bëgg soxna ma jafe ko maanaam ci wàllum noob moo xam jigéen bëgg a jubboog borom wala góor gi bëgg a jubboog soxnaam wala mi nga xam danga gis jigéen di bëggante ak moom te bañ a yàq seen diggante nga bëgg a seen diggante ba dara du ko mën a yàq ba tamit moom it du la mën a war ndax loolu lu bari si àdduna bi léegi la muy wàllum war moomu. ak ki nga xam ni safoor la ak ki nga xamee ni bii daa bëgg ubbikaay wala ki yàqu-yàqu dab di liggéey ba yàgg sab liggéey doxatul wala njëlee ca place ba nga nekkoon ak góor gi nga xam ne soxnaam dafa dem wala koo xamante ni daal di daal di doxalee ba yàgg men dafa taxaw fay complètement te yaq yàqu da ko def wala ki nga xam daa bëgg ubbiku wala ki nga xam daa jàpp ne tukki te bëgg bu demee réew ma am fa wërsëgu yaatu incha allahu rabbi wala ki bëgg bayre bayre jigéen am na bayra palaas am na bayra mbooloot am na te yi ma wax yëpp mu doon ay bayra wallahi bayra yu kéemaañ la lool sax yoo xam ne das koy liggéey bayra yoo xamante ni bi moom dina ko commencé moom yagul bayra yi doy waar sax ci wàllu mbooloo wallahi moo xam ne palaas boo ko def moom wallahi wal quran dana kéemaañ lool sax képp koo xam ne bëgg na ko incha allah na jokkoo ak ñun ak lépp loo xam ne day yéwénal mbirum doomu aadama rek incha allahu rabbi buñ si jokkoo suñu borom mën naa def na ko bëggee nga amee ko noonu waaye nag wàllum football ñi nga xam nañ ko bëgg dinaa gis si commentaire waxoon naa leen képp ko ci bëgg ndax nit ki lu mën a xew na wax dëgg te yàlla tax wàllum football moom xam-xam daa jëmul màcc ci boobu côté lu bari du ma ne xawma ci waaye li ci xam daa bariwul ci wàllum football waaye moom am na ko xam ne bi sama mag la ñoo bokku ndey ak baay wallahi xam-xam li ci ëpp ci wàllu football la jëm te mën na ko lool sax te képp ku jokk moom ñi jot a jokk ak moom xam na ci dara ndax am na ñoo xamante ne bii ban koy woo suur bi am mat si lañ ko woo ci bés bi nga xam ni footballam daal doon dañuy waajal waaye wallahi wal xuraan ñaari match yi am yëpp dañ koo gañe te ci bés ko woo wax ko maanaam ku mën wàllu football lool nag dinaa gis ni ko bind ci commentaire moom ku ko bëgg rek na ma woo maanaam loolu moom dama leen koy teel a wax ndax sama xam-xam jëmul match ci wàllum football yooyu li ma ci man bëriwul dama ne mën ma ko ay li ma ci waaye tam ginnaaw mën ma ko de saa mag mën na ko du jar ma di ko denc di ko bañ wax day daal nuruk soxor te moom mën na ko ci képp ko jokkoo ak moom li may wax di xam dara moo xam nga bëgg danga bëgg yow nga xam ni moom marque de lañ koy wax xam ne danga bëgg dugal ay bii wala nga bëgg a yëkkati ko ci wàllum football wala nga bëgg a dem ci club yu mag yi bu soobee yàlla wala nga di def sax concours ci école football yi boo ci jokkoo ak moom wallahi wal quran da nga ko bëgg na ko bëggee ni nga ko amee noonu ñi ñi nga xam moom ñi ngi jëflante ak moom ñooñu xam nañ ci dara waaye moom wàllum dugal ko moom sekkar ma ci am nag naa ko dugal ma ci gëstu moom ba am ko dinaa ko dugal waaye nag li ma ci am daa bërul moo tax ñi ko bëgg daal nan ma woo incha allah mbokk yi sekkara bi mooy aram masrax aram masrax dafa bari ay façon maanaam ubbikaay moom képp koo dem mun mu wax ubbikaay nga bëgg ci moom wala mu jox la sekkare aram nasara ci ubbikaay wala fatiha wala waaqia na xam ne jox na la sekkare ba am doole yooyu maanaam ubbikaay dañ cee dañ ciy am doole lool mu lu mel ni fatiha ak waaqia ak ak aram nasara yooyu moom yooyu moom sekkare ubbikaay yu kéemaañe la yu kéemaañe la aram nasara bii na lan koy bindee juróom-ñaari aram nasara ngay bind juróom-ñaari koy bind aram nasara basaaru jeex jeex waaye baax da kulli aaya aaya bu nekk da nga ciy dugal salaatu ala nabi boo man waaye nag salaatul fatihi boo ko mënee moo gën ndax daa doon salaatu bu am doole lool ba tax na bari na ñu bari ni salaatu mooy salaatu bi ëpp doole ci salaatu yi ñu bari moom lañ saxal waaw salaatu ala nabi boo man baax na baax da kulli aaya maanaam aaya aram sala bu nekk da nga ciy dugal salaatu ala nabi boo man salaatul fatihi boo ko mënee moo gën salaatul fatihi aaya aram sala bu nekk nga dugal ci salaatul fatihi mu aram bi jeex nga def ko ba muy juróom-ñaari ba pare nga wut reeni was wasoor reeni was wasoor jaaykat yi boo demee si ñoom ñi jaay ay wàllum reen ak yooyu ak wàllu der xeet yooyu noonu des na la ko jaay ñoom ak reeni dibutoon reeni was wasoor ak reeni dibutoon nga boole ko def ko saafara def ko am xàmb bu mag xàmb boo ko bu ñu ko waxee mooy nga wut lu mel ni barigo bu yem wala butéeli vingt yu mag yi nga def ko ci nga di ci sangu maanaam da koy def lu yaatu loo xam ne moom da nga ci mën a sangu juróom-ñaari fan te bu juróom-ñaari fan yi jàllee tam di nga mën des nga di ci sangu lu mat ñetti ñetti càngaay ak yooyu xam ne doo ko doo yàq da sangu juróom-ñaari fan bu juróom-ñaari fan tam da ngay continuer di sangu incha allah rabbi la neexee weeroo dugg sangu ci ñetti yoon wala wala wala seen bu ne nga sangu ci ñetti yoon wala benn yoon ba tey baax na waaye juróom-ñaari fan yi na ko sang ma tegaloo reeni was wasoor reeni di butoon wallahi boo ko sangoo juróom-ñaari fan te denn sobe nekkul ci yow da nga gis lu kéemaaña lool wërsëg na bàyyi ko fu ne di la dikkal da ubbeeku lool lool lool sax wala te mas goo nekk kenn la ci raw ké koo xam nag mënoo ko bindulu boo ñu woowee mën na la ko bindal waaye nun nag juróomi junni la koy liggéeyee ndax ñu dañoo xam li ci nekk ku ko bëgg boo ñu woo ñu bind liggéeyal la ko waaye nag juróomi junni la amul yéegal amul wàññi juróomi junni yooyu la taxaw ku ko bëgg rek incha allah rek boo ñu des na ko liggéey ba mu mat sëkk fexe ba foo nekk ñu fexe la ko yóbbante ba nga jot ci incha allahu rabbi mbokk ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yéen a waa Diwane TV bu ngeen dëppal duñu dëpp ci njariñ am solo yu wér te wër ci alxuraanul karim den ko baaxee yàlla na suñu borom sàmm leen te aar leen te barkeelal leen lépp lu ngeen frootee te warsagal leen te defar seen i mbir defar suñuy mbir def suñuy poos dara wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu